à critiquer, mhm. mais dans le plus grand respect aussi. Mhm. Parce que li chaque fois nous nit nous ngay respecté ça ne nga pas respecter, Si sa respectez da di nous mais encore une fois nous, nous avons réseaux sociaux bi su ma ci que Nous respecter président bi dama Nous ministre bi dama nous ki ñu wala dama Nous sama Nous man dañ ma ne ñëpp bu respecté kenn bu Nous Khalifi, barki dem lañ dégg espèce sagaru imam le di wax di dendalee ay saaga dem bay wax ci suñu yonent bi nga xam ne ñun ñii sax suñu jàng sori waaye xam nañ ne non mais lu grave nit ñi dañoo déggul wax ji parce que am na foo xam ne nee na da doon wax damay ŋeeñ sa xaw ma arwa aw awra mais c'est très grave c'est très très grave man man pour man waa ji dafa dafa jël volet volet wala dafa dafa tux yàmbaa man pour man dra sa dramé la ah man de audio ba mu ne woon sa biñ ne sëriñ bopp lay waxal bi ma ko déggee je croyais pas il a fallu que ma dem jël foo xam ne dañ ko invité télé ma dendale ñaari voix yi ba ba man ma tey la moom xam nga lu ko problème bi dafa bañ Serigne Mboup Serigne Mboup gën ko Serigne Mboup gën ko juddu gën ko ci bépp côté nag bépp boor Serigne Mboup gën ko ci Serigne Mboup référence ak ñu mu bokkal xëy na Serigne Mboup moo fës mais ay frère am ngi fi tekki li Serigne Mboup tekki mhm. daal nag xëy na Serigne Mboup moo moo moo fës ci yëf yi mais ay frère am a ngi fi ñooñu seen ndey dafa liggéey seen kër baay seen bàyyi ñaanal ñoo ñu ñu barkeel pour man soxor moo ko jàpp ak iñaan su demee kër sëriñ buub bee ca almadi xam na ne moom du sëriñ buub sëriñ buub du moom sëriñ buuba nga ne di liggéeyal Kaolack liggéey gu mucc ayib boobu moom set la pure méchanceté parce que boo demee bay saaga ay ndey sa xol naqari na soo demee bay saaga ay ndey bañ nga nit kooku mais loolu rek war na mën a tax ñu réguler parce que nekk ci groupe whatsapp yi tamit mbaa nga nekk ci. mais ñoom la ce sont les saagakat qui insultent les insulteurs insultés c'était entre eux et pourtant ce gars-là il faisait la même chose sur les plateaux télé avec ses autorités qui sont là ces autorités nga xam il est fréquenté di dem ci ñoom di wax ak ñoom di duggante ñoom wax na dëgg nee na président jaaxalu ko pale jaaxalu ko effectivement xamna li tax mu wax lolou legui na mom bi mu commencé saga di len xas ñom ñom it ñu ko di ko waat legui mu nekk entre ñom seen biir ñom yi neen la de kenn raxu leen nag <laughs> du ñëpp koy saga parce que euh, lu ci melni mouvement bi nga xamne ne moom mooy seen chargé de communication doomu daara jël def nañu communiquer interpeller ko ci nee na na na comporté en une en une. maanaam li am am il faut qu'on arrête li am amna ba paré il a toujours fait ces dérives là te doomu daara yooyu yor association bi musu ñoo wax ñi fi nekkoon lu ne yak na len ko na ko ci plateau télé Ousmane Sonko pipé parce que il faut qu'on arrête ce sont les insulteurs insultés maintenant té ay séni insulteurs ni ngi insulté batay ni ngi fi ñu insulté légui ñun ñi ci diaspora bi di lañ comment on va faire avec eux duy no duy luy neex a dindi de. ci ci diaspora bi ñooñu ñooñu kay moom kat leen AIBD rek yàgg yàgg ñibbi si. ah déet ñoo ngi waxtaan a gars yi ah ñu ngi wax ñoom Sonko pour ñu indi leen. waxtaan fa ñu ngi wax ci <coughs> ñu ngi wax. ñi ngi ñi ngi mer ñi ngi mer ñi ngi wax seen kii ne ñoom dañ leen a war a encadrer def seen sécurité mais ni ñoom ils sont quelqu'un. nekk Europe moom di saaga bu ñu mënta yónnee Interpol mu wax ci yow. ñu xaar la ay man de man defaloon naa leen plainte Interpol. yàgg yàgg ñëpp CIA xaw ma CIA la xaw ma ak Interpol yëpp bindoon naa lettre euh, bi ñu comme bi ñu di saaga di taal suñu kër ak suñuy bagage yëpp bindoon naa ba def déposer plainte bi. parce que aussi nekk nekk loo xam ne intérieur moo ko waroon def man def naa am nekk Europe di di di saaga moom yaakaar ne peut-être bu la leeree ni Sénégal moom amoo fi amatoo fi dara moom bëggatoo fi dara dara dara. mais di toog di xas di saaga ay xalifa doomu sëñ Fallou. di saaga jabaram. réseaux sociaux yi am na dugg biir laa dugg di leen saaga. réseau ba sëriñ bi xalif bi xam na ne moom ndeysaan yàlla na fi yàgg te bu waxee sax dinañ ko saaga. réseau yi am na lépp. mës nga gis ñooñu ñoom ñi ñu ñaawlu ko mës nga dégg ñu saaga fi xalifa wala jabaram nga gis ñoom ñu génn ñaawlu ko ñoom il faut pas ñu yëngal sénégalais yi quand même. ah ah Ousmane Sonko ñaawlu na ko. kañ la ko ñaawlu Ousmane Sonko kañ la ko ñaawlu sorti sorti mu ne ñiy saaga du ñu ay nitam. Ousmane Sonko mooy ba mu naan ñi muy saa ñiy saaga du ñu ay nitam. non non bien avant grand théâtre bi am na sorti bi mu bi mu bi mu defoon këram la ko defee woon sax avant muy dugg ñaawlu na li nga xam ne. avant muy dugg fan avant muy dugg ci waxtaan bi. mooy sorti yi daan def euh, live yi daan def lee dimanche bi mu mujjee setaan bi mu doon wax que ni. Euh, boobu ñu ngi ci nguur gi boobu ñu ngi jëm. boobu ñu ngi jëm ci élection avant ñu koy jàpp. moom moom wax que ni dinañ ko japp moy live bi mu def moy dimanche bi mu mujjee live di wax que ni nañ préparé parce que mom dinañ xamna ni dinañ ko japp bi muy commencé après dina la dina la envoyé vidéo bi nga xool bi muy commencé li mu njëkk a ñi nga xam ne nekk di calomnier kili xalifa général yi kilifa